ak chinois bi nga xamante ni mu nga ci turu Ly Liang moom xamul woon loolu ndax nee nañ sax moom eh, ca département bu Bakel bi nga xamante ni fa duggoon daal ab ay gendarmerie ñoom ñoo ko taxawloo woon ngir amal ay contrôle ci oto moom loolu nag moo waral nag moom mi nga xamante ni moom moo di chinois boobee bëggoon det mbir mi gaaw ñu bàyyi ko mu dem ñi mu dem ànd ak ña nga xamante ni eh, ñoom ñoo nekkaloon wala nag mu daal di génnee kayitub ñaari junni jokko daal ka nga xamante moom moo doon saytu mbir mi commandant de la brigade bu bees boobee nga xam ni moom moo nekk ca gox boobee ne mbir nag itam dafa mujjee ëpp loxo ndax nag moom yaakaar woon ni ka mbiri dina yombe noonu ndax moom chinois bi dañ ko daal di mujjee te yóbbu ko ca grillé ba niñ ko daal di yóbbee ca kanamu procureur de la république lu mën ci am daal mbir mi nekk jamono bii leen ret moo tax jóg ña nga xamante ni moom mu takk der yi ngir xeex wàllum guerre yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fii ci diwaanu Sénégal mu nekk nag mbir mu nga xamante ni daal jàpp nañu bokk na ci ponk yi nga xamante ni ñoo gën a tàddal Sénégal jàppe yooyu sax ñu bëri itam ci ay nit daal ñu ngi ko doon ñaawlu euh, gannaaw sax ay xaalis yu nga xamante ni dañ ko doon jox ñii di yenn ci ay takk der waaye nag bile yoon gis nañu ko daal mbir mi réew mi jamono bi daal jub jubal ak jubbanti lañ fi daal di sàkku ba na sax ñoom itam ñoom ñooy takk der yi ñu ngi koy appliqué bu baax a baax ci kaw tali bi moom. ok musiba la seen issance seen wata ak seeni salaire dañ ko ne ràpp tey ci bërëb. Lat Diop la ñu ne way juróom wu góor ba mu yëgee ne dañ koo denc ci la defub crise cardiaque démb kon ci la wuy ji boromam yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana Abdoul mbay euh, di naqarlu mbir yi ni mu demee ci wàllu économie réew mi ak mu di classement bi mu ñu defal waaw 120 euh, kilo yamba fii ci Rufisque la ñu jàpp ñeenti bakkan rot ci ab accident bu amoon ca Nioro Mamou Ndéri bari nay gàllankoor rek lënt-lënt waaye lu ci mënti aw yàlla yàlla defal ñu jàmm a duna aw ay du yam ci bopp borom yëglekaay gi naan maan kii di amoon na waaw ay ci jàpp gi nga xamante moom lañ ko jàpp yóbbu ko ca kaso ba ubbil yéenekaay bi weneen ay dikk na ndax ay du weesu baay dee dal ay waay la jóob yëglekaay gi naan maan moom ci jëmi boppam demam gi nga xamante ni moom la dem fa mbaxana doone benn ñu daal di ko téye yëglekaay gi naan maan garda wi gi nga xamante moom lañ ko amal le public quotidien yëglekaay naan maan bokk ki nga xamante moo di waajuróom wu góor yëgee crise la daal di piqué wóop yëglekaay gi naan ni moo di l'ancien ministre des sports ancien DG de la LONASE Lat Diop yëglekaay gi naan man li ko dal metti na ba àgg ci lool bàyyi ma yëg ni ma nga ca kaso ba mu daal di crise faatu révélation quotidien yëglekaay ñëw dëggal ni ma bàyyi Lat Diop dem na nañu dem fa ñooro révélation quotidien yëglekaay naan man taxawal ma wax la la fa xew aw soog woo xamante ni moo am de ab accident bu yéeme te doy waar metti ba àgg ci lool ab camion daal moo daal di daje ak wata yëglekaay gi naan man ni rinkum daje ba neel tas ubbi yéene kaay bi ca saasa laa ñetti nit ñàkk nañ seen bakk bakkan li ëpp ci waajur yi ci réew ma askan sunu gaal gi seen bakkan ci seen njàngum doom mi lañ ko teg yaakaar ne kat bu seen doom réussir ñu daal di réussir am li nu bëgg ndax gis nañ daanaka ci réew mi ku fonkul sam njàng nga àgg fa nga xamante ne foofu nga war a àgg am li nga war a am du yomb tax lépp lu waajur yi am génne nañ ko teg ko ci table ji ngir rek seen doom yi am lu ñu yóbbu ci école yëgle kaay gi naan man dem à l'aise fourniture ak li nga xamante ne moom la gone yi sol wu boppi waajur yu bare bari yëgle kaay gi naan man kaay ma xamal la ay waay lii tamit Amadou Diarra nee bu kenn votel Pastef laa la wax aa Bougane Gueye ci tribune yéene kaay la dellu te ginnaaw bi nga xam ne kon réew mi dellu na ko ginnaaw ni lée oh. ci rapport Modis boobu mooy wane ne Ousmane Sonko mi lée yàq na réew mi laa la wax mar di taali Abdoul Mbaye di président alliance pour la citoyenneté et le travail nee Sonko ak Diomaye mi lée guñ dara prouvé ci laas waaw laas te mbirum sàngara cigarette puberté précoce ménopause bu tardé hyperoestrogène wax mar di ja yéene day li gouvernement bi woote dikk leen jàpp ci réew mi de waaw ci inondation yi nga xam ne ñoom ñoo am ca Fuuta day Harouna Dia dugal na ca loxoom de gouverneur Matam ci boppam kon di Sayid Dia moo xam le jàppale bi nga xam ne kon Harouna Dia daal dina cay dugal loxoom nag ca dex googe nga xam ne kon ma nga fàq na kon wutali askan woowee te appel à la solidarité googe ministre Cheikh Tidiane Dieye hydraulique moo ko woote bés fi la journée Yacine ministre affaires étrangères waaw ci le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon demul nag ca ndajewu francophonie ba nee na Sénégal daal daa jàpp la xew ca Palestine gële génocide la bakkan yi nga xam ne kon maanaam ñu ngi lor te position francophonie bii bokkul ak position bu Sénégal boobay benn ministre bi day moom soxna si Yacine Fall nee gisul jàppale boo xam ne tamit membre ya nga xam ne ñoo bokk ca waa francophonie boobee ñu ngi koy jàppale seeni membre ak seeni bor yu bari endettement boo francophonie bii ah keesu la rek bu jëm ca yi ne diggante atum 2019 ba 2024 juróom benn junney milliards jox contrat bi ay milliards la su ko defee ma ne nga jox ma son wàll maanaam contrat yaa ma neex ay tappale ma ko waxee ca libération ba tey yéene kaay bi na njiitu réew mi nag Bassirou Diomaye Faye ba mu demee ca Mbuur fañ fa doon xamal bëccëgu set setal sunu réew moom njiitu réew fa faa wax ne gis nga ñun sénégalais yi ñooy liggéey suñu réew mi ñoo koy defar ñoo koy suqali keneen duñu ko defal nag te pour ñu suqali ko amul benn kéemtaan lu ma ñu liggéey rek jub jubal jubbanti gp yéen kaay na fa caa porox ndoll sàkku ci ndaw yi ñu toog ci réew mi bañ a dem ci gaal yi barsaak barsaak te ñu bañ a yàkkamti ñu liggéey réew mi yëf yi dana baax de li narta baax na mooy mbayum gerte gi ren waa aar sunu moomeel fa ñoo tiit ci gerte ren gi ña ngi ko waxee ci l'évidence yéen kaay turbine yéen kaay ko ne baykat yi fa ñoo nekk ci njàqare ndax gis nga gerte ren yi boo ci buddi fay mel ni gerte guñ bàcce ba pare maanaam du am benn doom te loolu musiba naaro laay la dugub daal lañ wax na baax na waaye gerte moom baaxul ren de te loolu musiba la ñeneen ñu nekk ci musiba mooy sénégalais yi nga xam ne ña nga ca réewum liban fi mu nii nag réew ma fa nekk guerre ak waa Israël ba ko ca kër ga bombardement yi fekk ko fa mu jaaxle xamul fu mu jëm moo taxit lu jege junney sénégalais fi mu toll nii fa ñoo bindu ngir génn liban daw ne libanais yi nga xam ne ñi ngi fii sénégal am seeni njaboot ñeneen ñu nekk ci ay ay jafe-jafe mooy ay elaw policier ya nekk ca Kaolack ndangaan yow seetal quarante-neuvième promotion bu sous-officier di ay policier yoo xam ne fañ leen di tàggat ci école tàggatukaay policier bu Kaolack lu ëpp juróom-ñaari weer ngi ne fayekuñ seen salaire ya cent cinquante-trois mille moom la leen état bi war di jox weer wu dee wu ne waaye juróom-ñaari weer jotuñ ca ñu nekk ca jafe-jafe yu du xaddu jeex ci école police bu Kaolack ndangaan école ubbi na tey lu ëpp ñeenti million ci ay élèves dinañ dem ci classe yi tey jile bu ànd ak yàlla waaye li ko jiitu ci samedi bi président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye demoon na Mbour ak mboole gouvernement bi tas dugg ci école yi réew mi ngir yeesalaat ko beesal ko setal ko ngir dongo yi mën a dugg dalum njàng moom président profité na ci gërëm njàngalekat yi ñaaxaat leen ci li ñu dëgmal waaye rafetlu na it taxawaay bi FMI am ci ànd ak état bi ngir xeex ñi nga xam ne ñoom ñoo luubal alali réew mi waroo lool ak gis-gis ñi ki teewal FMI fii ci Sénégal wax ji mu waxoon ak FMI ba nekk ci bitim réew la ñu wax daanaka yàlla ak yàlli la ndax ñee rafetlu nañ taxawaay bi ñii moom dañoo weddi woon waxi Ousmane Sonko Ousmane Sonko ay waxam ñi ko weddiwaat moom mooy APR dañoo def conférence de presse dal ne Ousmane Sonko mënut a tëb tëb joxe ay xibaar noonu il faut que euh, ay organe de l'État mën ko génne waaw ñoom APR ñu ngi yëgle ne président Macky Sall kon démissionné na ci ndombal tànk lañ ko takkaloon ca bitim réew ngir ñëw nag mën a jaamaarloo si ak Sonko ci élection législative yi waaye jaamaarloo ak Ba bu ko defee élection yi gën a neex te xeex boobu dina ko amal ci pegg yi Karim Meïssa Wade mbiri politique daal jaxasoo na daan man Sénégal Malawi Ismail Jacob si Aziz Ndiaye en renfort sunu waa ji Sadio ci jëmi boppam ma ngay woon a war ab boppam ñaari bal tegle daal ko dugal ci genn ak ca Al Nassr na Al Nassr téena ko le record yëgle kaay naan maan gaynde yi commencé nañ li nga seen entraînement ku ne xam ne le octobre gi ñu jëm dañoo laaleeg Malawi Ismail Jacob Abdou Aziz Ndiaye convoqué nañ leen li ma la a xamal daal Pape Thiaw ay boo xamante laa wax da doon jéem a mbëkk policiers yi maara day taali ngir daw dañ ko ngoy ak 128 kilogramme de chanvre indien du xam ngeen yàmba simokaali bug si lees ko fekkee waaye musiba mbaama kumba guude dëgg dugal nga ci sa bopp lii sëy laatiir bu mbokkee xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig kon bu suba jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal ñu jaajëfal bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye leen koy yër Sénégal bonjour cher gente de di enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi mesdames et messieurs bonjour nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay simbuleex mox la li xew ci réew maskanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw halaan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen nga ca <laughs> seen te te te ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah ñu yendoog jàmm C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Que mais la ci dong mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëbati bon que Dieu préserve le Sénégal ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm day <laughs> lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko tere xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que jomaay Sonko te Sonko jomaay boo paree ma ne la alaaji si laatir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak salaam yéen a doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel Diakine Diop. ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha